ويمشي لدى الهدى من الواسي الوهابي فهو النذير أميري خادم يمين بجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وعجيب نسوري كرمي أبسمت وحده خادم الخير خلقي وهو النبي من أصل الهدى ومن كل هوين وأجعل مجير مسيري كوني عبد خادم النبي عشير سهوري وأيام بنصم ونزله نعم السبيل بزوري كتاب الله وسنة النبي بها أتمع ما نهى البصير خسوري قلت والأهل هني تفرقت لمن لي الهمة وخفي خرور وراء خرا خرور وراء خر نثارا بكيده وسلموس سنونا وسنون خرور رب الجبات العالم تايبا من الذنب والآفات وهو غفور له بفاقهم بارك رداءه ومني له هدنا لا يدمير له تبغاه رداءه ومني لو زر يدفم كثير فديك فديك ببذر منه أبقي ذكوره عليه سبعا والمكور زهور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به بالنص ما يلزى لمن صاب التيسير وهو خدير فاكر به ربا فاحني الهدى وساق المنالي والجناب حقير خليت به ربا وليا يكون لي مرامي واني شاكر وفقير اموري له فوتت والقلب طيب قريبا لدى الأحداء عاتبته في البحر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تابت لأن صفاه معه وأنت بمديك الزرعات جدي فطرق لقي تهدي على أودي بمنيتي فذاك خلال مولاي الكريم يعفي حليك صلاة منه جل مسلما ما والآل والأصحاب النجم بالدين ومن سرات من سرى من إليك يا منى كالكلي يا من نداه به أخذني أخذني يا خامما إلى البر والأبرار أن تدفوا فبصر سب الإسلام بي هاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمة على غير من تلقى إليه أمور على غير خلق الله ترا محمد سمي الذي كل يقي وينير مع العالي والأصحاب مثل الهدام همزه السلب حني كل من سيجير لكن لصديق رضوان ربي كما خارنا في الخير من يأتير على سيف الفاروق من ربه ردا كبير كما قد الزب وهو وزير ومن وجهه نور عين أبهر داءه النار كما أباد الحدار بالسيف وهو سهير على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفوا بهم أرتجي من مالكي نصره على سيسرك بالتسليس حين تجي يظنونني وقت ترابي لديهم أجيرا لهم الكل سعما يعفور ويارى أسارى لساتي والهوى وإني لرب العرش جل عسير أسير إلى سي البر والبحر حاددا ولست إلى الفجار حظ مزير مزيري إلى الوهاب xayril karimi maziru tamassaktu bil hablil matini murattilan wa bi urwatil wusqa lati hiya bi zirku min rabbi li rabbi muwahidan wa hulil masara wal buhuru tamuru huwal kanzu wal kibritu wa zadu li huna bi tantafi nar al khadda wa subbu أنا منهم منفرا صلاة تقيني سوى حيث أسير أمو مرام gisoo daan Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall def nii waay Cheikh Ibra Fall ñoo ngi nii aywaay kuy Baye Fall dugal Njaay burum jigéen ma can Njaay gisoo daan waaye Seex Ibra waaw góor amoo morom ci biir daan jaaraama Seex Ibra Faal labdi Seexi Bamba Taal Bamba Taal Bamba Taal Bamba Taal ndeysaan ndeysaan dégg loolu waaw lu mu wax dégg loolu lu mu waxati dégg loolu lu mu wax Bamba Tall Bamba Tall Bamba Tall Bamba Tall Bamba Tall la ilaha illallah batun ah. nusori batu baray ana ku bëgg ma waxi bu nafi muslihu للولي بدر البدور بعد وغوات مر الوهرات قلب الغفور خزهرا والمسلوخا كل يهرا هل يهرا

yaay maam Cheikh Ibrahima Fall maam sey ndeysaan jaaraam maam sey faaloo jaaraam maam sey Ibrahima ab yaay maam Cheikh Ibrahima Fall kaddu yay maam Cheikh Ibrahima Fall làmp Badru Muridina maa ngi siyaare bu wér Serigne Cheikh Khadim Fall ci bisam bii di ko jox wàccu waayam di ñaan saa borom yàggal ko fi ci wéral ko bis bi yàlla ci daje ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall maam di siyaare bu wér taawam bii Serigne Khadim Fall di sama xarit di sama wëllëre Serigne bi bëgg ñàngu mag ñi may jàng lool moom Serigne moom Serigne Cheikh di ziar bi yéen Serigne Mbacke jël mii nga xam ne Serigne bi nga jaayam la di léppam at mu jot mu may taxawu bu baax di ziar bu wér sama soppe bopp muy Serigne Saliou Fall Serigne Saliou Fall moom Cheikh Modou Moussa Fall Serigne Saliou Fall yow taalibe yépp la bëgg. looj mokkel bataako abarisit kutumi dawme booma banana kaceeki fand bango dem kaddu dem fépp wër tourné waaye nag lu mës a def bu tedd dugal na ci loxoom kan mooy taalibeem bi signalement crête noire de peau taille au-dessus de la moyenne des sénégalais fronton élargi chevelure crépue et broussailleuse œil petit et vif arcade sourcilière saillante pousse grande nez épaté alliance dans le pays mariée avec les femmes les plus nobles du Baol et du Cayor et de Sine descendante directe déjà seen famille royale indigène Djid et Drobé ces familles ont été rivales pendant plus de 300 ans se femme surnommée premier Gagne Siri Fall fille de l'ancien Damel de Kayor Omari Mbone Fall deuxième Gana Diop troisième Koumba Thieleman et tous les deux filles de Damel Ladior quatrième Lalla Aïssata Fall fille de Samba Laobé fal ah France bi Hitler di tibb France ba si ce n'était pas je bombarderai la France dans vingt quatre heures et je mettrai de Gaulle dans un bouteille et je lance Atlantique maa ngi Moustapha mële daaw ñoo taxaw ci Tour Eiffel taxaw Arc de ak Alioune Badara Ndine maa ngi fàttali baax di ko nuyu au passage. Ba Babour Ndaw Baye Fall keroog fekk fa sëñ xadi te sëñ Xadi mii sëñ xadi Fall mii ku la gis li muy liggéey Italie bis bi bu paree man koy defee Italie di ko woote ci diaspora bi kon inni uxaatibu nasara tura fi ardihim bi malikil mutra tayabtani bi anna lilahi abdan xadiman li rasulillahi Serigne Touba moo ne woon danaa waxanteeg yéen ci seen réew ya waaye sëñ Fallou sëñ Salim bi doon dar sëñ Touba fa man keroog bi taxawee la taxaw gouverneur président Kersan Soule commissaire des colonels chef service administratif Boyard lieutenant-colonel supérieur des troupes Jourquet directeur de l'intérieur par intérim médecin principal chef du service de santé Ogare lieutenant de vaisseau délégué du commissaire de la marine Bassiat conseil privé titulaire Lomène conseil privé Supervillé nekk secrétaire archiviste jour boobu la tubaab bi bind rapport yoo xam ni kun ko bindaloon ku dul sëñ sa dara ko jar lan la tubaab yi wax dañoo bind na le 5 septembre à 9h du matin, sur la convocation du gouverneur général, le conseil privé s'est fini dans la salle ordinaire pour cette délibération. État présent, le mouté le gouverneur président, après avoir examiné certains problèmes relatifs à la colonie, le conseil a approuvé la décision. Nous le rapport de nous avons Touba. La lecture des rapports de Moussa Merlin et Leclerc et fait comparaître Ahmadou Bamba à état d'habit et l'unanimité qu'il y avait Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal jërëjëf Fall jërëjëf Fall yàlla xéewal yi ko Fall suba nag eh suba mooy bisu Baye Fall bu mag bi kan mooy Baye Fall bu mag bi Serigne Abdoulaye Mbacke borom Belel murit bu ne ameel nga njukkal sëñ Abdou Lahad dañ la daan jox convocation doo xam looy nga ñëw naan murit laa sol pantalon ak ñu naan la waaye toppal fële commandant du la respecté commande commissaire du la respecté accident bi du la respecté xamoo looy waaye ñu ne la daaj convocation nga sol bàyyi laat bi teg ci maxtuma bi dalaas oto yi la romb nga dugg biir commissariat